إلا الله لا إله ay ca mburit ay ca mburit ay ca mburit Touba ca kanam dekkalaat na ndamal mburit yooyee nga xam ne ñoo àndoon ak jàmbaarul islam ja Cheikh Mamadou Moustapha bi Cheikh Mamadou Moustapha ñëwee war a liggéey jumaa ji ñu ne ko faw nga gas raay 55 kilomètres mu gasee ko njaareem ba tuuba loolu moo indi raay bi fii boobaak léegi nag juróom-ñeent fukki at la ak benn mbokk yi képp ku doon xalaat naan bu ma fekke woon gasum raay ba tey ñu ngi nii di gasal tuwo yi yoon mbokk yi képp ku naan bu ma fekke woon xare baral tey ñu ngi nii di gas ngas moom nga xam ne mën nañ koo méngaleeg ngas moomu nga xam ne nii moom la Cheikh Mamadou Moustapha santane woon te junniy mburit ak juróomi téeméer gas ko ci ñaari at ak ñeenti at tey Touba ca kanam loolu la dellu si mbokk yi njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall a ngi a ngi nii ñëpp a ngir lan ñu fas yéene liggéey Touba ba benn ndox dootul des ci mbedd yi mbokk yi kat saar waa ngi nii kuy jàng saar waa ngi nii kuy tari saar waa ngi nii yitte ji nga xam ne moom la sëriñ Muntaxa di wax fu mu toll mbokk yi yitte na yëf yitte rek la yitte rek la yitte man yéemanuma ko daal yitte rek la yitte jii nag ma gis ci yéen moom wax dëgg yàlla yitte rek ko mënta weesu bi ñu tàmbalee gas ak léegi lu toll ci kilomètre ak lu topp mbokk yi gas nañ diggante Tookoor ba ba station Daaru Xudoos ba tàmbali nañoo teg ci diir bu gàtt nag xam ngeen ne lii mooy Pastef mbokk yi la ñu waxoon rek liggéey bi mbokk yi yaatu na de rëy na de dana yàgg dana métti waaye nag dana sotti Touba ca kanam jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfati waa kër Mame Cheikh ay ca mburit la ilaha